موتا لدى ما ينبام ما عيوبي وكف ذنبام مدحت عند أناس قلوام مدى كفاني العدا والبلوى مني لي خدمة قد لا سمت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 Cheikhul Khadim jërëjëf jërëjëf bisimilah kon mbokk taalibe yi ñu ànd teewlu kon mbokk taalibe yi ñu ànd teewlu rek jox kilifa gi mu ñaanal mbooloo mi te ñaan mu yàgg fi lool tànd ak te ñaanal mbooloo mi ñu yàgg koo teewe te liggéey bi gën a la te sëriñ mi nangul ñu ko barke borom Tuubaa sëñ si xaw Balla moom Cheikh Mamadou Fadel moom la sëriñ Mamoun Mbakke mi ñu yàgg ànd liggéey bi muy Cheikh Mamadou Fadel moom la yabal ci jotaay bi mu ànd ak i doomam yi ak i rakam sëriñ Mamour Sam ñu miin ko lool waa ëllu xasida miin ko lool ca diisi sëtub magi mag Mamour Diarra ku sañoon am mag bu mel ni moom kon Yara Mbàkke dafa dal ci sab ndongo yi kon ñi ngi def ni jaam di def ak sangam rek bu la neexee jàpp ñu jaay bu la neexee yow ñuy maye barki borom Tuubaa alhamdulilah wa kafa Euh, bokk yi ñu ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar ñoo ngi leen di ndokkeel ñoo ngi jokk ak bokk di jokk ak taalube di jokk ay kàddu yoo xam ne sunu kilifa sunu sëriñ moo ñu boole rakkam ci ak doomam yi ñu ñëw feddi li ko ko ci muy sëriñ Mamar bi ngeen xam sama jàmmoñ sëriñ Modou Baara moom suñu xarit Awa ak bokk yi ci gannaaw yëpp ñu ànd sëriñ bi yabal ñu wax ñu dénk ñu ngir bu ñu ñëwee jot li ko muy kàddu cant rek ak kaddu yu yéene ak kaddu yoo xam ne yu jóge ci sëriñ Touba ndax tey moo bi sëriñ Touba moo ko doon kon ci moom la ñu jóge mu jox ñu kaddu yooyu nañu bu ñëwee nañ ko jotuli sëriñ bi nee na mi ngi sant bokk yëpp nee na mi ngi siyaare bokk yëpp nee na mi ngi ñaanal bokk yëpp jotaay bi nag euh, dem ki mu dem daggul mbooloo mi déedéet mag day bëgg jot te ku sonnut mag sonn moo tax mu jógoon dellu ca ga di néggandiku comme xaw naa guddi nag mu xam ne moom moo ñu yilif nañ ñëw waxal ko lool yi moo tax mu ne mi ngi dogal ngant mu ngi jéggalu boromam di leen sant nag te loo xam ne loolu moo tax waaye dellu gi amut waaye mën na ko bu loolu jàllee ñun bokk taalibe yi nga xam ne ñoo toog di waxtaan sunu bi ñu waxtaan sunu bopp xool sunu bopp defal sunu bopp wax ci sunu bopp ngir dox bi ñuy dox te dox la boo xam ne dox bu yàgg la dox la boo xam ne dox bu bari ay pàkk-pàkk la dox la boo xam ne am na waayu jub bon joo xam ne mi ngi ci yoon wi di jabar di laayin du ko yàlla rëbb mi ngi ci yoon wi te li muy dox lépp bëgg a jaxase lépp loo xam ne yàlla tegoon na ko koo xam ne kat yàlla mi la bind yàlla mi la bind moo la njëkk wax wax jooju kon ngeen waxe noppi jëmm joojee nag yàlla ñu saa borom musal ba lépp loo xam ne jóg nañu ko te kat bu leen jàpp ni mukk mukk nag mukk jomb na kenn bis bii day jàng nañ fi xasida goo xam ne danañ ci war a ibra wan nañu ne kon jombut kenn yaakaar naa ayaasanallahu bi nga ko jàngee da ngeen xam ne jéemoon na waaye daa ñàkk jéem ñàkk tëleem googee na ca kooka muy ne dana tële fu nekk kon bokk yi ñu xam ne moom moomee mu ngi dox ba tey dañu fexe ba ñu tàmbalee suñu bopp xam ne kat lam def ci ñun maa ko nett léegi ci yoon wi indil ñu yoon woo xam ne ña ngi cee jaar te loolu doonul yoon wa nga xam ne moom la sëñ bi bëggoon ci ñun sëñ bi la bëggoon ci ñun maa ngi dégg benn yaakaar naa ne sëriñ Moussa wala kenn nettali ko di wax ne dafa am bis boo xam ne sëriñ bi da doon def imtixaan mooy testé wala bokk natt ba xam mbokki taalib bu taalib yi nekkoon mag ñi lam bëggoon ñoo am nañu ko mu woo leen ba ñëw mu jël ndab teg ci kanam daal di jël wenn doggu ndawal teg ca ndab la loolu lam si jublu mooy saxaabatu rasul dañoo mas def benn xare boo xam ne daa am ñu ca daanu lot lool xam naa aw mar dikka leen ñu fexe ba am ndox moo xam ne matul ñëpp waaye mën na ñenn bi ñëwee ki njëkk a jox biñ ko joxee da na jox joxal ki sa si man ndax kat moom bu fi desee bu fi desee moom dana mën a àggale di taxawal diine te man moo ma gën a yee ci loolu ñu topp leen topp leen ba juróom-ñaar ña ka mujj waxaat fekk mu faatu ba mu ñu ko ñëpp fekk ñëpp faatu sëriñ bi ñu ne mu jël aw dogu nag dawal teg ko ci bool bi wenn dog ndongu daal ni xew leen daal dafay laab daal dem mag ñi kenn ku nekk yaa ngi xewlu cere ji waaye bu sol boo logee boo gisee ndawal gi muy wenn dog nga bokk sama morom ñu koy booxante di ko booxante di lekk di ko booxante lekk ba ñëpp noppi ku ne jàpp na ne sa morom jël na ndab wa bisi mi ñëw laaj ñu ne waaw kii nañ baax a baax mu ne alhamdulilah daal na ubbi ndab li fekk fa ndab wa mu ne alhamdulilah rabbil alamin lii laa bëggoon ci yéen loolu mooy lan bokkum taale bi bu ne ndax xoole boppam Sëñ Tuubaa buñ ko àndee ba noppi nag ba sayewaa da takku nag ñu jël ko jibbal ko fa nekk Sëñ tubaa mu xoole ñu xoole ko ko waaye ku bëggee ku nekk tëb sa bopp xool sëñ Tuubaa ci sa kanam sa bopp kanam moroom sotti nañ nekk benn jox naa exemple léegi ne léegi layen boobu ma seytaane seytaane def na loo xam ne bàyyiwuñ ci xel ba ma laaj ko sëñ sëñ bi léegi ci yoon ne ko sëñ Xaadim ne ko dëkk ba nga nekk dëkk ba nga nekk seytaane dugg na ca daayira ba def fa loo xam ne bàyyiwuñ ci xel mooy lan tey ji amul benn daayira boo xam ne benn daayira boo xam ne jawriñ ji ñeme naa jël euh, xaalisu daayira ba dem jébbal ko Cheikh Mountakha ba noppi ne ko wóoluwuma la da koy wax ndax gaa yi wóoluwuñ ma si mu tax ne ko tax mu ne ko bindal aw kayit jox ma mooy bàlli su màggee jox ko gaa yi na jox na la xaalis bi la bu fekkee ne waa daayira ba wóoluwuñ ka ñu jox xaalis ba ba tax ñu ne ko aw kayit dina jóge ñu doon laa wóolu kon la taxoon daayira jóg seytaane dogal na jabaat doom ba ba yàq nañ ko nañ xam ne daayira boobu loolu taxoon jóg mooy lan yàlla dajale ñoo ñu nekk benn islaam daa fonk mbooloo tusbaar takkusaan timis gee ni nga koy jullee bëgg ñu dajaloo suba gi xool waa koñ bi tusbaar xool waa bi baaxee kenn manqué na wala kenn feebar na bu kii at bu kii bi jeexee semaine bi ñu defee àjjuma ci jumaa ja ndax warul gan bu at mi jeexee ñu joxe màkk waxtaanee fi jullit yi loolu moo tax daayira ñu bëgg ñu nekk benn waaye suñ demee ba bu ñu la joxee dara la yëtul sëriñ ba waaye wóoluwuñ la nag yooyu dama bëgg a sëñ bi ah wóoluwum kat jox ma kayit sëñ bi jox la kayit ne jox indi nañ fi téeméer junni nga dem taf ko ca buntu daayira ba sallallahu alayhi wa sallam waxoon buy joxee boo ko ba gis ñun ñu ne ñun bu ñu nañ ko fàng fawal si taan njëkk jaar ci ba jaxas féewali ñu ba wóolatuñ kon nañ delloo xel yi xam ne sëriñ bi li ñu ñun ñu nekk benn li ko waxee léegi rek nañ nekk benn ba say sunu say takk ba mu dëgër doo ko jébbal ka fi nekkal sëñ tubaa wax ka fa teewal sëñ tubaa jotaay bu nekk jotaay bu nekk ka fa du ma ne ka fa gën a jege waaye ndax jege moom daa wóorut ndax ku sës la si mu rek da dem waaye kañ fay xoole sëñ tubaa mooy sëñ tubaa kooku nag na xam ne mooy sëñ tubaa ba def fa jëbi sëñ tubaa loolu yu war a xool suñ ko defee ne kookee ñu jàppee ko loola jëbbal ko ko moom la mu jébbal ka ka nekkal sëñ tubaa feneen loolu mooy li nga xam ne ñun bokki taalibe yi nga xam ne fu ñu jëm ñu ngi xeeñtu lu baax lu mel nii lu baax la ndax dajaloo di dikkar zikrullah mat salaat loolu di ko def di ko def su ne bisub lëmm loolu moom tuyaaba gën koo weesu kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax nañ koy doxale ba la mag nga tënkoon takk ko teg ko ci suñu loxo ñu fexe ba bañ koy jébbal suñu doom dara bañ jaa manqué walla mu mu loru kàddu yooyu lañ waxoon na Seexu Balla waxoon ne ko laabiire bokki bokki taalibeem waaye sëriñ bi moom nañ bay xel ne amul lu koy naqari sëriñ bi yaakaar naa ne gëm naa ne sax laay wax keroog ba mu gënee àdduna ñu ne ko sëriñ Tuubaa bokk sëriñ Fallu looy si waajur àdduna dara naqarite ci sant yàlla def looloo lu mën a si lu mën a seere la loo xam ne lii ko deewoon ci xolam la ko ci fekk bañ ne ko dañ koy xee bañ ko waxee loolee la ko àdduna lépp dara naqare du ko ci àdduna kon amu la koy tusi àgg na ci nag ne li ma wax léegi rek benn la toogaay bu metti bi moo tax mu soppi doxin ba ngeen ñëwee tamit wax na lam ñu wax ña ñëwoon dénk na leen yóbbante na leen wax na leen lam leen wax danañ ko waxtaan ak seeni bokki liggéeykat yi nga xam ne ñoo bokk kuréel gi suñ toogati di waxtaan ñu waxtaanee ko ba bu ëllëgee tamit lépp loo xam ne gis nañ ci loo xam ne war naa mën a defar ndax lépp defar la sëñ bi buy ñëw day ñëw ngir yàlla ñëw ngir yil la ñëw ngir yàlla mooy lépp moo ko def ba mu ba fii fekkee bi rek moo ko indi ndax jàpp na ne moom mook moom ndax def am na xis bu nekk li boo xam ne ne sëñ Fall waxoon na ne lépp lu ñuy def sëñ Tuubaa rek day jàpp ne mën na ko defar kon dafa war a teew moo tax ma départ Sénégal wàcc nii la ko ñëw fii fekke si ko lañ waxtaan waxtaan ko ci kër ga loola waxi daayira la wala boog waxi ñu laabirinte la dénkaay na ko mbokk yi nga xam ne teewoon nañ fa euh, danañ ko waxtaan rek ngi ko war a waaye li nga xam ne daal sama mbokk yi màndal àndal ak ñi ci gannaaw ñëpp yóbbanti woon nañu ko ma ak cant rëy na ci moom gis na ko mu ngi ñaan nag yàlla daje bi ñu daje nii yàlla bu mu doon mujj daje te tànk yi ci waay dox jóge fu mu jógee lu mu sori sori yàlla amul lu jomb yàlla def ko muy tawfiix yaatu lool tànk yi njëggal tànk yi mucc képp koo xam ne indi woon nga fi loo xam ne xat xat yàlla saabara wàcce ay xéwal lool te Serigne Touba mi nga xam ne moom lañ daw wuti ko yàlla nañu gàttandu Sëñ Tuubaa mi ñu tawati ko yàlla nañu ko attandu tawati ko attandoo yàlla na fekk ñu ànd ak moom ca ngërëm la mu bëgg ko ànd moom bokk yi lii la sëñ bi waxoon nañ ko àggee bokk yi Seexu Bàll yokk ci yéene jooju mu amoon rek ak bokk yi ñoo ngi ñaan yàlla déwén saa yu ñu ko jàppee yàlla dajawaat ñu nii te bu fa dajee yàlla tolloo ngërëmal sëñ Tuubaa lañ fa jàng ci ay xasida ak bokk taalib yépp yaa ngi koy wàcc ci réew mi ak réewum Sénégal yàlla dafa jàmm ñu ànd ak jàmm ba liñ bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa ñu àgg ca nam ko bëggee mu ànd ak ngërëmam ak tawfiixam bi barkil Xaadimu Rasuul wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbooloo mi ñu ànd ñu ànd tàllal loxo ñaan sëriñ bi amiin yaa rabbal aalamiin barke borom Tuubaa alhamdulillah